ci li nga xamante ne tey moo xew ci série yi saa su ne ñuy xeex li nga xamante ne ñu ngi koy promouvoir muy li nga xamante ne lu bon li ñuy wane fan yi yàggul dara ñu gisaat beneen série boo xamante li mel na ni pornographie sax la ñuy jàngale wala di ko wane ci biir série loolu ci biir Sénégal oustaz Iran lan nga ciy waxaat ak waaw xam nga laa yastawi alxabiisu wa tayibu walaw ajabaka kasratal xabis bu la neexee kasratul xabiis bu la neexee yàlla danañ dem ba pour nga gis mbaax dalay të ndax mbon gu bari waaye du tee baaxee not rek xale boo fekk muy jàng alquran baa muy julli looy wax est-ce ma jël cent may xale bi xale boo fekk muy saag ngeen ko waaye yow yaa réew xam nga lu yaa ma gën a réew waaye yow parce que yaruñu ko donc ngor am na gore am na ci seen maam baaba kër Si da daan wax ne man de bëgg yàpp duma tax a lekk waxañ man ngeen ko firi médd ndax ñu bari fi xamuñu waxañ daan na waxit ne mara naan duma tax a naan póotit mm. mm. duma la naan póotit parce que póotit mu yaramu jàmbur la parce que man gor laa Babacar Si waaye it bëgg xaalis jarul affaire porno ah jigéen wal mar'atu kulluha awratun ma addal wajhi wal kafayni lii feeñ ci ruus lii buleen teg sama baaraam ci moom di ko taqale laaluma ko xam naa leen waaw lii feeñ ci xar kanamu Rose dagan na ma feeñ dagan na ma gis ko dagan na loxoom bi lii dagan na ma gis ko lii lii xar kanam lu dul lool jigéen da ko war a muur waaw ku faalewul yàlla nu lay faale wóor na ko ne yàlla tere na joxante loxo wax na na jigéen ñi toog ci kër wax na nañu muur seen yaram muuraay gis nga muuraay du pour diini de muuraay euh, dafa am alal bu ñuy tuddee jigéen am banque buñ ko war a denc kontam muy yëre yi muy muuru yudniina alayhinna min jalaabibihinna jigéen dina muuru gën a lool ku dul muur muuraay du diine day nëbba yaramu jigéen ba góor ko bonee ni Iran du ko xemmem seetal soo fekkee ku muuru ku mel ni ndey ci buntu seen TV nga fekk fa beneen jigéen tudduma kenn nag neewuma Germaine de bu ma kenn tudd tooñ mu taxaw ci bunt bi sol jiinam geet réew gàddu ay caméraam ndey xadi toog fële muuraayam xam nga looy wax boo yemee ci germaine gal na nga def u booy na nga def soxna su du ko dégg gel walla booy est-ce que bugaa na ngi fi mu ne wóoruma laaj ko kee kee mooy ndey xadi nga ñëw tiim ndey xadi mu toog nga ne ko soxna si na nga def mu ne maa ngi sant yàlla nga ne ko dama doon laaj ndax bugaan ak mu ne waaw euh, yéegal ci ko man léegi laay doog a ñëw de xaw ma ndax mu ngi fi de duggal foofu am na ñu toog foofu comportement am moo la mayul nga ne ko gel moo la mayul nga ne ko booy li la sa xel jox mooy kii soxna rek laa ko mën a wax moo tax jigéen muuru pour nëbb yaramam la bokkul ci diine ji bëri na koy muuru ku muuruwul gën ko jikko fuuf parce que daa amul lu mu sol loolee la am kii nag am na lu mu sol mbona ko neex te gis nga boo nëbbul sa yaram li la daal xam nga ko sa lépp di formé wu di génn sa ween yeeg sa taat yeeg lépp ne ci biti taat yi ne wëng ween yi ne jajj ngay watar watar yi dolli ci koo romb mu di la xoolaat bu manul ci yow dara it xelam ne ci yow koy muuru dox dox bu yiw bandi du la xalaat jamais moo tax ñooñ di jouer ñuy wax ay série yéeg loo ci man bu leen neexee def ko seen sid yi loo leen manal su leen neexee def ko feneen manaloo leen dara baleen nag yàlla rek waaye ku ne xam na ne lu rafet lu rafet la lu ñaaw lu ñaaw la loolu ku ne xam na ko lu rafet rafet na lu ñaaw ñaaw na na réew mi dellu ci lu rafet bëgg siiw jarul lu ñaaw bëgg ñu xam la jarul lu ñaaw jaru ko jaru ko nañ góorgóorlu ci lu baax te man amila saalihan fali nafsi wa man asaa fa alayha benn journaliste ñu ko firi loon ku ñuy wax Pam Ndaw rajo Sud FM bi ma doon liggéey bi may liggéey moo ñu ko firil Pam Ndaw daa daa ñëw ne gars yi lu ngeen coow ñu ni ko diw mu ne waaye dem leen liggéey lu waay def boppam lu waay def boppam jeex kon ñoom it def seen bopp waaye maa ngi leen di ñaan de buñ ko mënee bàyyi ñu bàyyi ko de maa ngi leen koy ñaan nag suñ mënee jouer leneen ñu jouer leneen lu yiw te rafet parce que yooyu ngay gis élage mii ma ko laaj xam nga moo ma ko laaj waaye moo ko dàqa seetaan ñëpp ah moo day soob rek moo ñi la koy laaj yëpp ñoo la ko dàqa seetaan parce que ay du seetaan ay jàng de jàngi lan ay wangeetu rek ak ay juutu xëy na nag da ngeen koy laaj pour seen te <laughs> seen si di avancer rek waaye mu ngi nii élage mii ak yàq mee ñoo yem ah, waaw góor gi ittiwoo jabar xam nga ñoom rose ñii man suma doon ñoom du ma jur doom xalifa ne ma xajj ama Amadou xam nga lu tax gannaaw doom du baax lu ma ciy jur ki ko war a baaxal mooy yaayam te yaayam pour doomam baax mu seddal sama xol waaye bu dëkkee ci tàngal ko fu mu jëlee doom ju seddal xolam fu muy jëlee kuy seddal sama xol ti jigéen bu yeewu woon dana fonk jëkkëram ndax bu jëkkëram gisulum xam mën naa daw dem yoonam kenn du ko tuddee caga bu góor waaye jigéen ju dem dinaan day cagatu ji boo demee am déet kon toogal ku ba ndey basa baay ndax sëñ Muntaxa mii ci siddu jàmm ji nga ba sa ndey séyal ko ba baay séyal ko na Muntaxa di sa baay di sa yaay di sa jëkkër loo waroon defal sa baay defal ko ko loo woroon defal sa yaay defal ko xolam di sedd koo fa jur sa xol sedd koo fa jur sa xol sedd mais léegi lu ñuy wane suñ demee boo war tëdd defe nga ni fer yu toll ni ab goj bëgg bamba di ay fer laa wax koy wékk xajul ci biteel yi nga mel ni goj boo leem wékk pour nga xëlëmtu sa jëkkër mooy xoymet ko xoymet am moom la yenn xale yi xam xëlëmtoo ñun moom lañ xam ci daar yi nga xoymet ko sol séer bu bon woddoo say takk say fer ñaari per am per bi yóbbu nitu yàlla ci yàlla kurus mu ngoog abal ma kii kii mooy yóbbu nitu yàlla ci yàlla mu des fer gi ne mooy bi Amadou yor <laughs> bu ko dagg de xam nga bi ci ndigul jigéen moo yóbbu góor ci bakkenam muy bëgg-bëggam waaye kii kii boo ko téye ba sukk ci kanam sunu borom per boo dóor mu wax yow parce que da ngaa fas yéene yéeg waaye fer gi ci ndigg li dafay yóbbu borom ci bëgg-bëgg bakkenam est-ce que xam nga ne wax naa ko Ablaye mais góor am na ñett jigéen am ñett góor am na ñett jigéen am ñett man nag jàngalekat laa man sama làmmiñ du rafet. ñett yi góor am. mooy gannaawam di taatam. ak awraam geenam muy ñaar yan la ci am li mu lekk mu ngi koy génnee ci gannaawam. du benn bu dee saw fu mu koy génne ci awraam su dee mën yi fu mu koy génne ci awraam ñett yi la am jigéen ñett la am li mu lekk ci gannaawam la koy génne comme góor su dee saw ci awraam lay sawee suy génn suy génne règle ci awraam la koy génne ku ne am nga trois leer na wala leerul trois plus 3 égal loo ci xam. 6. ngay wax 3 plus 3. loo loo ci xam nag noo ko gisee seetal loolu te teewul nit di tiitaru su tëdd jotee nga xoy mit sa jëkkër takk say fer sér bu bënn di sëgg sëggulu ci ron lal bi armoire. nga gis ne sa jëkkër ndondi la jigéen rek ko ko ñor moo ne li jëm sawo fay génn ak régal kooku bu xalaat xóotee du la ñor taat yi muy manifester fala fala sobe bi génne su demee wanag kon waroon nañ ko ruusa manifester ndax bunt bi fi nekk a tax yàlla dafa bëri yërmande su bindaloon nit ay yax ci gannaaw amul ay kàpp yu mu toogee bu toogee ci lu wow da koy yëg mu utal ko pour mu nekk ay éponge pour bu toogee du gaañu ndax yërmande yàlla yow ñu far ko nag soppi nag ku dem ba amooy wang uuti saga roof ca di wëgër wëgër ci marché bi am ñoo xam ne sér yi ñuy woddoo soo ko xoolee gis silib bi ñu jiital daa ñuul wala daa weex damay tabax sama benn kër benn kilifa gu mag benn colonel ñëw ca kër gi gaari oto kilifa gu mag nuyu ma ni ma fii pour lan la li li ñuy tabax ni mu laaj ko maçon bi maçon bi ne ko douche publique la mu ni ma non Iran mu ni ma douche publique baaxul dafa indi kersa ndax ñëpp toog ci ëtt bi kilifa jël kur euh, euh, satala romb nit ñi dugg ca duus ba mu ne xel yi li muy xalaat mooy lu mu fay def ma ne ko nu may def mu dugg ci saal bi ca gannaaw ñu def fa douche bi ba tey moo fa ne mu ni ma douche publique baaxul parce que ca jëm la nit ñi xalaat a tax te loolu ñu bëri seetluwuñu ko Muntaxa ñu bari seetluwuñu loolu gis nga il faut nit ñi am xel yi di dox la ma waxoon ndaw sax est-ce que xam nga leen jigéen am na mën nii waaye dafa jaune weexul maa la ko wax dafa jaune góor mën niyum dafa weex tal fatt taraj comme laalo kaay ma wax la mën yu baatu arab la min mëniyin yumna alquran la firéeguma ko ci olof li ma wax ci arab ngeen ngeen di ree bu ma ko waxee ci olof du dara mooy lu weex te fatt mel ni laalo mooy mëniyu su dee mësiyu booy foog jigéen mooy ndox mu weex moom di génn mel ni nestale jaru sangu am na ndox booy gis léeg-léeg booy saw boo sawee ba pare mu génn weex